xam xati xam xati xasida yi bëgg gëti xasida yi liggéey gëti xasida yi kon ñooy jiitu ca kanam xasida yi mooy sëñ bi buñ ko xamee ak buñ ko xamul